la sax bëgguñu la xanaa xanaa kay xanaa kay xaw ma meew la xaw ma soow xanaa xanaa man moomu ko xanaa ah déet naa ko déglu rek xëñ na xëñ na day meewal boppam baa muy soowal boppam waaye man moomu ma ko ah déedéet xanaa kay moomu ma ko kay xanaa naa ko déglu rek ñu panu ah, ah seen caali seen seen seen ndi lay seen seen seen seen seen seen seen nijaay ma maa ngi nii meew mi ah man maa moom meew mi kon yaa ko moom waa daa tàng kon daal daa tàng nga meew saw meew indil ma ko waa sa bànneex rek laay dem nijaay léegi yow man ma yaat naa la meew ah waa nday nga naan rek nijaay naanal rek daa tàng. naanal ba pare eh, yow. yaa tax ma def ko defar ko de. <laughs> waa di waa léegi <laughs> man maa tax nga def ko. waa jigéen sax bu mu saana togg xanaa bala balaa kenn ñam day ñam ba pare yow léegi naanal meew ba pare yow. bu eh. fii après nga jox ma ma àggale. naanal rek sekk yow def sa bànneex rek sekk naanal. Eh. wallaay naanal sekk. bu ya seen yaa yaa ma dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yaa ma bett. ah yow yaa judd ci gileem nàmp ci mbaam dëgg dëgg. yow ak ma jaar yi ak yow yëpp moo tax ma defal la meew mi di yow war ngaa meew bi ci def poison di ba ko jox. aw si. ak ma poisonné je l'ai vu. sama bët moo ma may. ay nijaay du ma la def loolu sax. may romb ci waañ wi. gis la nga génn ci nga dindi ci sa lafu sër. nii daal di jël sotti ci biir meew mi. lii man maa ko gis sama bët ma ko may. ay nijaay dee bul xalaat loolu yow it. bu yo bu yo bu yo bett nga ma. tey day am naa gàcce ci yow. ah yow yow bu yow yow ti même pas yow noboo ma. ak bëgg naa leen di jaay. déedéet seen caali noboo ma. ndax eh, jigéen jigéen ñu baax ñi. ñi ngi jël seen i jëkkër di leen nabbi nabbee bëgguñu dara lu leen métti waaye yow soo ma noboon doo ma empoisonné. ay bul wax da nga ma empoisonné. ay waaye bëgg la a def ah. lii billaay def ma si dara ni jaay. léegi defoo ci dara naana. ah ah eh, man su ma ko naanee sama estomac bee tax. day métti ni man léegi man damaa gis sax léeg-léeg nit ñi bu seen i estomac di métti ñuy naan meew estomac da koy faj naanal meew nit ah heure bi su ma ko naan sama soma bee. ah voilà pare nga bëgg ma jox ko ma naan ko. mais bu seen il faut être honnête. bilaay honnête naa yow. Ah. bilaay honnête yéen yéen yéen yéen yéen lan moo leen yow defar nga meew mi am loo ci def. bëggoo ko naan léegi nga ni mën nga ko yéene. te nga ne nopp nga ma yow noo boobu da ngay fen. ah ba di jaay bëgg naa ne bu sekk na bul wax loolu. yow ah, léegi nag ah cam ay maa ngoone ko du góor ay sama ndey ja laay laay di ngeen xam nii ba ma nee put ci samay loxoy ndey xamu leen ban ndox la ma sama ndey lenkale xamu ko xamu leen ko ah waaw man dan maa jur fan ma war a jure yar ma fan ma war a yar patal lu ñu ma làggalu ma waaw may doomi yoon teg ca man man ku may def lu bon dama cay teg sama bët sama bët moo ma may léegi nag yow euh, xam naa ni moom yow dama lay daal di libéré nga dellu tay ba njaay ay euh, bu yo fase naa la ay ëpp naa def ni jaay. fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la fase naa la ba muy ñaar fukki yoon fase naa la xanaa loolu leer na fase naa la fase jëlal say bagage nga dem nga dem fase naa la. nijaay sëy bi lu ko takk tasu ko de nijaay. ah lu ko takk tasu ko. déedéet. waaw mais mi takku ko waaye mais mee ko tas parce que dama empoisonné. te nga maa dimbali rek toog sekk nga naan meew mi. xëy na bu ma waxatul di nga noppi. meew mi moom duma ko naan moom boo dee naan nga naan meew mi naanal meew mi yow te jël say bagage te nga génn meew moom duma ko naan. te doo ko naan nii. waaw kii moom xam nga lan ba jàmm la. kon nag maa fase nii. Eh, ay ma fase naa ma doon yëngal dimbale ma ngir yàlla ay nit yaa bu ma fase. yow yow yow yow doo yow doo gor. yow vrai xool ko mu ndoog ëmb mu po ñii ñii ñii ñii ay imbécile lañu rek cim hmm? xaaral sax parce que bu ma toogee day yomb yow ñu naroon laa empoisonné la nga nga daal di rëcc nga toog fase naa rek nga daal di toog non du ma def loolu parce que xam naa ko lii génnewu ko kër gi bu ya xam nga la laa yëg waaw kay yow naka jekk sax yow ab voyageur nga dangay ngay rek fekk na la nga defar sab saak ba noppi damaa bëgg nga jël loo fi am te génn sama kër munu ñaar ak ñett dégg. nijaay kii dafa demul fenn. waaye yow waa sam mi yëgu ma da nga ko mais na ko wax. elle demul fenn. elle va nulle mais loolu la ñuy loolu la ñuy seet yow nag da nga yëpp ah. xam nga lan laa lay yëgal am na nga jël te nga génn sama kër. voilà lépp bu fi bàyyi dara jëlal yëpp jëlal yëpp jëlal yëpp waaye yow lan nga may xoole lan la da nga cee bëgg a topp waaw mais Jibi Samb li mu mel ni bëgg a ah da da maa bëgg nga ko gaaw nga ci dóore dóor ma xool fase naa ko loo ci man bu fekkee ne da nga bëgg a topp yow itam fase naa la nga àndaal ak moom jeex na bu li ngay def yeex na ah jëlal say valise nga may ma nga may ma sama kër waay voilà yéen ay drogoor ngeen rek yéen eh, yow demal yambar bi nga doon cim kii xamul kii doon ma rey cim waaye yow topp ci topp ci topp ci jibi sama yow jaral ni man façon xool yi ñu may xool laa xamul bu doon mënoo fexee ba fase wuma ko bu fekke ne nag da koo bëgg a topp nga ànd ak moom yow it fase naa la demal demal mais jibi lu may xoole nii jibi nag maa bëgg a dóor man de xaw ma li nga may xoolee lu mu doon waaye yow jëm jëm jëm jëlal lii waa yow. Oh. Oh. Eh, indi leen ma dog indi leen ñu dog indi leen ñu dog. nijaayee dog jotagul. léegi ah. treize heures trente. waajal julli kii damaa xamul lan moo ko dal nii. dama doon gént dama doon gént. Oh. dama doon gént. gént. mariage ne loo mës a gént moom dëgg la moom. <laughs> bi gaañ nga ma ci lool. subhanallah bul waxati loolu bul waxati loolu déedéet yàlla bu mu doon dëgg. baal ma baal dama doon gént rek baal ma baal ma. nan nga doon gént baal billaay jàmm la rek jàmm rek jàmm rek. Ah, waaw jàmm rek. waaw ma si baal ma baal ma baal ma moo Cobra baal ma. nee naa la ba tàyyi noo dangaa tàmm di ma jege bëccëgu weeru koor. dee may sori. koor wàcc na la de. Ah, koor da ngay sori sa borom kër. Ah. gént nee li ma gént hmm. li ma gént. yow na dama laaj waxtu waxtu bi moo gën. xam leen ko xamu leen ko kooku intéressé wu leen ngeen xam ko ngeen ñàkk koo bañ a xam intéressé wu leen. waaw man daal ñaan naa jàmm ci li ma gént man yàlla